sportif yi nga xam football lañuy suivre mu jël ay tiktoker ak ay mbeuri lamb yobul len lu tax lolo lolo ma jaxal te man ñu bayima fi en tant que mara du peuple. waaw. man lolo ma jaxal te daw coupe d'Afrique coupe d'Afrique bi ko Sénégal di jël ni négligé ma ba li am ci réew mi. coupe d'Afrique bi ko Sénégal bi ko Sénégal di jël fi nga taxaw di saraxé ay nen ak ginar lu nek sa saraxe di passé na 400000 Fernando. 400000 francs. dépassé naa lan moo tax lan moo tax bu ren bi yobou ñu jël coupe bi. lan moo tax bu ren bi yóbbuwuñ la lan moo tax bu ren bi yóbbuwuñ la ségrégation. waaw léegi man mais léegi nan lay def léegi man lan mooy problème bi lan lay def. ma ministre bi na la delloo na ko dal vidéo yi na commencé daqarnaase live yi commencé daqarnaase ñu delloo la li nga li nga jot a fere parce que jot ngaa fere ndax jën nga ay yëre yu bees pour waajal dem voyage yi suba pour pour jël sa vol dem dem Côte d'Ivoire léegi boo fa demee léegi koy supporté ji Sénégal dañuy ñibbi ah. si kan ngay supporté ji. boo fa demee koy supporter yi Sénégal dañuy ñibbisi di. oh. ma toog ci hôtel ba rek. ah. non. Basir loo rey nga ma. sama yaram rey nga ma mais ndugum ndugum ndugum ndugum katt ndeyam ndugum ndugum rey nga ma. waaw sëñ Bara nag sëñ Bara lu la ndugum ndugum def. ndugum ndugum defu la dara yow kay yow. lu la ndugum ndugum ndugum nugum nugum oh nugum nugum mau ko gisee rek muy wax rek laa xam ne jiguma oh ay lamb logo gi kenn xamul ay lamb mbëru lamb mbëru lamb ay ay supporter lamb ñuy kat sendai dari leen yóbbu bàyyi fi maradi peuple nga xam ne chaque match damay sacrifié wu maa ngi nii tàggoo naa tàggu naa samay mbokk ba pare billahi tàggu naa samay mbokk mboolem samay am di jàmm yu ma am rek man tàggu naa leen ah? yéen ñiy seetaan sëñ bare jox leen ko ay cadeau boog mu jaxaw see jàpp sax te yàlla tax Oh, te xoolal ne woon naa bàyyi naa lépp léegi tuub naa bàyyi naa duul yi may. waaw suñu bari da ngay jooy nii bàyyi naa fenn rambaaj bi dama ne su ma demee Côte d'Ivoire léegi damay changé ah kenn déggatuma ma wax ci naka su dul noonu laay futuma defatuma dara. toog jàpp sama jàmbur doomu toog jot ndee mi teg ma lii xoolal lii ñu ma teg mënatuma dem man xamoon naa ne rek xamoon naa ne rek ba ñu yóbbu premier supporter rek mënoon ma cee boole buñ ma ci boolewul rek man cat damaa jàpp parce que sëñ daraa ngay jooy de oh. solution bu mu non faa faa faa. non déedéet may la déedéet. booboo lan la. waaw non daw na yaram nag may leen ko ay kado waay. may leen ko ay kado jooy de. waay. metti na li Fernando dafa metti li nattu yàlla la. waay waay man ku ma tooñ xanaa ku ma man wala ku ma def dara. man kañ nga ma gis gis man laay Fernando. ah Fernando man nga tooñ tooñ sax dañ ko gën a waaw depuis nga dem Porokhane ba léegi jégalu nga ñëpp. waaw ba nga demee poroxaan jégalu nga ñëpp mënuma génn réew mi baalu nga ak ñëpp ngi tukki di dem di voyager ndax dañ fay def loo xam ne defuma ko wala man dugg avion dama jom léegi ci réew mi jom la de dina ñëw de dina di nga dem de inshallah di nga dem de di jot rek yomb waaw waay sama yaay waay di nga dem de suñ bara bilaay jar naa jooy bilaay li dafa daw yaram quoi tàggatoo tàggatoo ba war a départ ba war a départ suba suba suba gañe Sénégal métti na waay may ko ndox am naa la waay maxu suba teel waay waay maxu ma waxoon naa la ma demoon na gaa yi na yi jox la benn visa euh, euh, France rek wala Espagne nga dem ah. noppalu wax dëgg fa yàlla nag ah. mérité nga ko quoi vraiment lii moom tas yaakaar moom gënu koo ah. wees moom lii moom dafa metti moom lii moom comme dawul sa yaram doo doo doo doo doo jullit lii comme dawul sa yaram rek doo jullit waaw billaahi jënd ay bagaasam jënd ay yére jënd ay mayo jënd lépp pour waajal suba suba suba suba mu war a départ dem xool biyam bañ na ko biyam bi normal la war a départ si war a départ suba war a départ suba ñu gagné Sénégal war a xalaat war a teg sama nekki war a xalaat ak ñaaya me teg war a xalaat live changé vie tuuti au moins dugg ci avion bi naat vidéo dama waroon a dugg ci avion bi vidéo yaa may dégg nekk ci aéroport bi vidéo sax ah sax mu tane tuuti même su ma dee dem Mauritanie sax naa dugg avion rek ñu xam ne maladie boobu dugg na avion am na vidéo ay vidéo ma ngi ci avion bi non yaay wuy sama ndey wuy yaay sama ndey na dëgg de wuy sama ndey wuy yaay boo yooyu tàggu waa kër gi yëpp koñ bi koñ koñ bi yëpp sëñ Bara tàggu na leen war ngeen a jëndal ay ananas buy ñibbisi koñ bi yëpp Fernando ñu yóbbu Badar mu dem mu ngi déglu bul doomu ndey. non bul jooy bul doomu ndey Fernando. non la laaj bi bala moo fay Fernando. il faut ñu il faut ñu. Ah, damay xaru waay damay xaru waay. non non wuyu ñu jéem def ba bare ah, mi mu dem vacances Maroc une semaine Fernando loolu. waaw dañ koy jox ndox bu naan ba pare. waaw su tegoon sama tànk ci buntu escalier bi sax. Ah? su ma tegoon ci sama tànk rek ci buntu escalier bi sax match bi sax ñu ne ma sax refoulé la sax garaawul amul problème. bilaay walaay taalaay amoon naa visa amoon naa visa ba pare amoon naa visa. amoon naa billet ma ko suma teel jëndoon leen na ma lépp wutoon leen na ma billet wutoon leen na lépp mais saa bu ma jàppee voyage saa bu ma jàppee voyage mu fomm digoon nañ ma fi billet bu yoon na ma fi billet Dubaay bu sa catam ñëw fekk ma may live mu duul ma duuli rey ne ma sëñ Bada Kéemaan maa lay yóbbu Dubaay ma ne ki may jëndal billet Dubaay na nga ko bàyyi bu sa catam dana ma yóbbu Dubaay ndeke buuse day duul buuse daa mën a yóbbu boppam Dubaay <laughs> ba yóbbuwaate Dubaay <laughs> léegi non Fernando Fernando dama bëgg nag dama bëgg nag la Mara di pour mu dem Maroc pour une semaine. non non non non non non. dana Maroc wala Dubaï quoi. ndax il faut il faut mu yëg avion. kenn benn nit bu mën a volonté wu pour jënd ko billet Maroc. ah yàlla sama yaay. ku ko mën a dimbali ci billet Maroc. ah li ma sama yaay ñaanal nga li ma sama yaay booy ñaanal nga. li ma sama yaay ñaay li ma sama yaay mooy ñaanal rek. ak saa yi ma def ak ma def ma def ma nga koy sama yaay waay waay yàq naa waay waay la laa waay. ma ne ku si mën a def loolu rek mën a def loolu quoi il faut mu am billet Maroc wala Dubaï. Fernando il faut ñu xool ñu volonté wu. su ma dew rek na bind quoi ndax il faut mu dem il faut ba dem sande yow bindalee ànd ba léegi baaxut ak si pas si sew non non non non ñu tàqali ko ñu fanta si non yow kay da ngay dem non non non yow dootoo yëg ci oto bi ñu kattan de ay oto bi dootu la yóbbu non non non oto bi dootu la yóbbu yow dootoo yëg sëñ Bada moom defal nànk defal nànk defal nànk bala ngaa jël décision xoolal sëñ Bada defal nànk bala ngaa jël décision waay sama yaay booy waay lan laa koy wax sama yaay booy bi ma ñaanal wuy ma defal ma ay sarax génneel ma sama turam ndox. xaaral ah. xaaral balaa live bee jeex balaa live bee jeex dina am ko ah. volontaire jël jëndal sëñ Bada billet billet billet billet. waaw waaw waaw mais nan ma remboursé. waaw. ñu remboursé waaw ah, nan ma remboursé billet bi nan ma remboursé billet nan dem kër Mbaxu suba teel nan dem kër Mbaxu ay waay bay soo day day nii la ñuy duggee kër Mbaxu ak la eh, dawalal dawalal ah, dawalal ñu dem kër Mbaxu dawalal ñu dem kër ah demal kër Mbaxu boo demee foofu noonu Mbaxu dina xool ndax nan dem kër Mbaxu way sama yaay boo dem kër Mbaxu di xool ndax dinaa mën a remboursé billet bi waaw dinaa mën a remboursé billet bi man kay nan ko remboursé waaw abi génn merci beaucoup li ma ci jaaxal mooy suba boo fi toogee rek du baax parce que bor yi ma amee dinañ ñëw fayeeku ma bor yi ma amee ma suba lu ma leen di wax laa ilaaha illallaah waay yàqu naa waay li yàqu naa yàqu naa cat baaxut gars yi ay waay kan mooy oh. volontaire waay jëndal sëñ bana billet màkk ah. billet